saaga yi nangam sangam. ci ci dellu ginnaaw boobu sax euh, président ñu ngi gis euh, tey la woon procès en appel euh, kii di Mame ak Ousmane Sonko. Euh, peut-être di nga def une analyse ci procès en appel mais au-delà de ce procès en appel on parle de 29 milliards pour Prodac euh, déjà euh, qu'est-ce que loolu implique impliquer déjà scandaleux, on parle là de 29 milliards Nous, avons gis Bougane qui parle d'un détournement de 98 milliards autant de scandales qui ont freiné freiner peut-être le développement du Sénégal. Il faut freiner le développement Sénégal gis nga merci pour une question sur le problème Prodac mais fi ma bëggoon daanee depuis démb am na ñu may woo man en tant que député ma ne mais waxal leen ñu parce que ñun dañu mooy village yi ma wax léegi j'espère que dinaa ci ñëwaat dañu attaqué taal suñu village kenn waxu ci amul justice xam nga foofu fan lay mujj un jour mooy bugguma sax wax ñan la parce que day mel ni affaire xeet la wala waso la mais ay village pël la bu dee bu dee pêcheur yi comme diggante pêcheur la ñoo bokk lépp kenn du fa gis ay problème farfarloo loolu tax tamit dañ dañ ci war a def très attention loolu tax ma ci ma ci doon def ndànk depuis sànq mais ngeer cey boobu ma doon wax noonu mais gars yi dañu ne benn benn pël am na problème ak benn jakartaman bu ko doon yóbbu ñu ne nañ dem song village bi yëpp yàqu ko te kenn sañ ci wax te gis nga yooyu nag mooy le vrai danger qu'on doit identifier parce que sous région bi yëpp dafa tàkk Mali dogon yeeg Bambaraï, qui bambara yi kii Burkina te arme yaa ngi dem te gars y dañuy circuler dans toute la sous-région bu fekkee nit république assemblée nationale ñu tëj ko ñun mënuñu ko fa wax amatul ay gendarmerie wala justice bu mën a régler problème bi bu yàggee gars y dañuy dem wuti en gànnaay bopp toog de xaar ñu régler seen problème c'est le troisième ou quatrième village qu'on détruit mais yooyu ay problème la nañ ci wax product bi nañ ci wax parce que effectivement product bi dafa nekk ci programme boo xam ne dañu ko jaay ay milliards waxuma ay millions ci ay milliards ñu dugal ko ci mbéyum mbéyum euh, kii bi euh, ceeb bi ay milliards ñu dugal ko ci mbéyum leneen ak leneen pour ñu ne dañuy am autosuffisance product yi waroon utiliser cent emplois créer 120 000 emplois ñu defaloon ko ci ñu nga xam ne ñoo gën a désespéré ci Sénégal ba di jël mbëkk mi di dem bitim réew ñu ne ah ñi bu ñu demee bitim réew lan lañ fay def witti ay fruits ci tool ay espagnol wala ay Italie fo liggéey ci ay tool te espagnol ak italien yi ñu ngi ñu fii ci Sénégal di fi def ay tool comme wetu kiren 6000 hectares ay hollandais ñoo fa de di fa bay lu ne ay fraises dañ ko fiy bay bu Europe amee hiver ñu yóbbu ko fa ñu ne nañ leen defal ay. domaine agricole communautaire yoo xam ne ku nekk di nga ci am sa ferme mun ci suturlu mun na ci dund dund ko xaw a tane au lieu ngay dem di witti toolu espagnol yi te gars yi d' accord nañ ci loolu mais gis ngeen takku itato bi ñan ñoo waroon dem ba coow li commencé depuis 2018 ñu ngi ci wax ah. du coowul procès bi moo tax ñu ñun wax na def naa ci émission ak seen naatango Pape Alé Niang 2018 ci problème dak yi bind nañ ci bindaat lu tax affaire boobu ñu koy na sa xaayal ba muy indi coow li dem ñun dem nañu ba dak itaato filmer ko envoyé nañ film bi ci presse bi yëpp ay bassin yoo xam ne dañ ko war a dañ ko def pour euh, yar fa ay jën bassin yi fourage grillage yi daanu jumtuwaay yi fa joxe woon pour liggéey jumtuwaay yu bëri ñu ngi foofu di rouillé ci naaj bi château d'eau yaa ngi foofu mm, kii plaque solaire yi ak pompe solaire yi kenn pratiquement neew fa di liggéey ñaata milliards six sept huit milliards boo demee fii Kayar dem naa fa barki démb ci béykatu pomme de terre yeeg soble yi maa ngi nuyu waale président Ndiaga Fall mais boo gisee jéego yu ñu def ci juróomi at yi ma leen gëj a visité ñoom seen tool ñu ngi doon à vingt cinq tonnes l'hectare tey ñu ngi ci trente cinq tonnes l'hectare ñoom seen ambition mooy dab espagnol yi li ñuy def fii te ci seeni i alali bopp la ñu di liggéey mais amuñu ay chambre froide c'est bu ñu béyee léeg-léeg seen production bi yàqu ndax amuñu fu ñu ko denc méliare yooyu ne woon foofu itato di yàqu ci àll bi bu ñu leen ko liggéeyloon ay chambre froide wala jibale leen ci jumtuwaay nga def na ñoom du ñu demu espagnol yi wala italien yi nekk fii ci suñu réew waxuma France de waxuma Italie nekk fii suñum réew di fi béy lu doy waar waaw ma le ministre li ngay wax noonu mi yokk xale yu mer waa li ngay wax am na solo mais bu ñu ñëwaatee ci scandale yi fi am yow député nga à l'Assemblée nationale nee mu ngi koy énumérer avec vingt neuf milliards Prodac yi quatre yi nga xam ne président Bougane mu ngi ko fi exposé bracelet électronique yi nga xam ne cent cinquante mille lay jar cent quatre vingt mille ñu facturé ñu ko trois millions de francs CFA ak problème mu mille milliards de fonds Covid bi yéen gisuñ leen ci yooyu combat. pour nga xam ne dañuy mën a saytu li nga xam ne mooy nos deniers publics foofu la loolu lañ lay laaj. ci loolu lañ lay interpellé. combat bi fan lay amee xanaa stade a Diop parce que bu dee gisoo ñu ci benn combat mooy yow peut-être da nga yaakaar ne stade euh, ba ma nekkee assemblée amul benn scandale bu xew ci réew mi boo xam ne chaque jour waxuma ci. <laughs> da wax wax nañ ci Dakar dem dikk léegi léegi maa ngi fàttali poste naa ci ñëwaat Dakar dem dikk ba fa ministre bi ñëwee. attaqué nañ ko durement moom moo joxe benn misaal buy wane ni sax pour xelu ak xarañu suñu ministre yi ministre des transports actuel parce que nee na dafa am bus yoo xam ne dañu am problème batterie dañ leen di bàyyi ñu tàkk toute la nuit pour parce que buñ leen fayee duñ leen mën a taalaat gars yi dañ leen di bàyyi foofu ñu tàkk Dakar Dem Dikk ñu renouvelé un parc bi en 2015

Mm. wax nañ ci armement bi. lu jëm question écrite question déposé 123 questions écrites 18 lañ en tant que non yow déposé. ci question déposé question orale ci justement la poste. comment se fait-il xam nga le scandale mënul état a dëppook yoon état bu bañ fonctionner comme parce que dafa code traité de ak ci unique de l'OHADA boo xam ne ñun ci suñu droit la bokk dafa ne bu demee ba société am say bor tolloog xaaju sa fonds propre maanaam sa capital social dañu war a nekk ni def la sous redressement jël ay mesures yu tar pour que parce que yaa ngi dem ci yoonu fay pour poste loolu wees na y a plus de quinze ans fi mu toll post boram ful na ay capital social am Il ay en ait peut-être De 50 mais peut-être 800 000 pour cent chiffre exact donc il a na bañ ko waree def boo Si le ministre de la poste je ci wàllu boppam da de ne tey jii nii chiffre yi de masse poste c'est 18 milliards chiffre d'affaires poste c'est 7,3 milliards Vous faites ni c'est kër gi non lay de durer un mois ou, un an, salaire est 100 millions, chiffre d'affaires est 70 millions, 30 euh, euh, millions. Parce que 247%, 18 milliards et 7 milliards Nous dénonçons ce qu'on est, il faut qu'on prenne des mesures drastiques. Nous, Assemblée, nous devons encadrer, demander à mettre sous tutelle mais assemblée bul vous que nous une une majorité et surtout malmi non inscrit là, hein. madame, groupe jël combat pour sax gën ko fësal gën ko porter hein. parce que fait une conférence président nous avons nous etc. fait etc, duñu amuñu poste commission boo commission nous avons nañu dem commission assemblée yi sur 14, amna ci 6 ou extra yu opposition yor waro nañu mën dem saytu ji loolu càmbar parce que wax du ci du ci coow ay plateau ni rek de du dem ci radio yek wala réseaux sociaux di coow da ngay jëf denk nañ la commission énergie war nga mën dem xol ci énergie def ci càmbar yu yu yaatu def ci ay déglu manam wo directeur généraux yi wala xol en tout cas yu yoon may yep ngeen jël ko assumer ko pleinement comprendre nga

du début ba ba ni mu yexé fi est-ce que da nga japp né euh, procès la entre deux privés comme ni ko ñuy faree ci nguur gi di waxé wala procès la bo xamante euh, amna lu ci laal ci walu politique muy procès Mame Mbaye Ousmane Sonko bon après buñu baralé ci question Bob. après nak ñu jëma dugg ci yenen question yi après dugg ci programme quoi parce que bon Mm, bien sûr monsieur le ministre non parce que question c'est jamais simple car et réponse tu ah, ah, un procès entre deux individus c'est toujours un procès privé. voilà et euh, pour accélérer ma réponse moi li may faral di tontu que bu faites ni gars mu leer ci Sénégal yëpp diffamé nañ leen du ñu def appel parce que am nañu en première instance jugement bu ñu soxlawoon mooy diffamation am na te la partie adverse euh, deful appel ki ñu ne yaa diffamé yow yaa waroon def appel defoo appel mais ça veut dire que gars yi ci ginnaaw dañu xam ne effectivement mooy loi unique yi ma doon wax léegi loi unique nga xam ne mun nga jaar fii dóor nit trois mois sursis rek ne dootoo bokkati ba ilaa yow mi loi unique boo xam ne man mënuma ci d'accord que mu dal x y z duma ci d'accord parce que waruñu mën a écarter benn nit rek ci loi unique bu mel noonu surtout ba ñuy àtte mbir mi wax nañ ko ñun que bu doon yoon def na liggéeyam Cour des comptes taxaw xool nag ba ñuy commencer di plutôt ba euh, Prodac ba ñuy commencer di tudd Prodac wala of nag dem seeti dafa def doon fekk leer na bu yàgg ba du soxla ay privé di ci werante ndax moi j'étais auditeur de l'aviation civile mais c'est toujours les mêmes principes d'audit maanaam booy définir critères yi fan nga war a auditer da ngay xool fi ñu ëpp risque mooy fi nga xam ne coow bëri na ba nga xam ne xam nañu ni coow lii ci product du peut-être neen fa dañ dem xool yi ensuite kàppoor gu bëri nekk na fa manam enveloppe financière bi taxna bu fa problème rek lu la yakar bi ci compagnie aérienne damay compagnie bu passagers avion risque compagnie par jour lay peut-être vous bu des problème peut-être nombre d'implications des ëpp comprendre nga donc bu doon jaar nañu yoon tay rek frustration benn partie de l'opinion publique sénégalaise ak du peuple sénégalais parce que xam nañu affaire bi du neen kese te won nañ leen ñun li fi xew itato maintenant ceci ne veut pas dire loolu mooy problème fii ci Sénégal dañ lay noir loo wala blanc loo ceci ne veut pas dire que boo waxee ci nit ñu woo la yoon da nga war bañ ba pare chaque jour bu amee dëkk bi tëju comme tey jii nii. kon noo gisee tey Ousmane Sonko ak conseil am yëpp tey demuñu cour d'appel. ñoom nañu def li seen liggéey man wax naa ci li ma doon wax nañ dem ci feneen quoi. non da <laughs> <laughs> dafa mel ni mënoo wax lu weesu loolu da kii yow. Ah? da lay xoqatal terrorisme bi am. ndax yow loo wax rek ne bi neexatu la wax. pardon sànq ba léegi je vois que terrorisme bi da nga koy bàyyi xel. bàyyiwuma xel benn terrorisme nee naa leen. Mhm. wax naa ni je ne peux absolument pas être d'accord loolu du commencé wax man je suis un homme libre mais procès boobu est-ce que duñ ci jëm ci impasse su demee ba. Euh, Ousmane Sonko ak conseiller mi buddee audience yi. kooku ñu war fa du ma commenté ci loolu. technique de procès bi nii la def du ci commenté. dama ni li ma ci wax doy na sëkk te gisuma ku ko ci waxagum d'ailleurs. je dis que je dis que je dis que procès bi entre deux citoyens la am na ku wax kenn dara waru woon yëngal dëkk bi. parce que wax nga affaire assumé ko nga da nga dem wara dem wuy ko nañu def nañu eh, malgré toutes les casses ñu yàqule seen alal ñu ci seen bakkan rot yëpp verdict mujj donc verdict mënoon na am sans sans ñu bon les cyniques me diront que bu amul woon casse bi verdict bi day gën a bon mais mais mais, mais c'est ça la vie je dis que vous faites ni que leen que a vous setal le bopp setal le seen devant la justice sénégalaise parce que nous setal seen devant le fait que Product mu ngi ay marché alors et que vous... bu juge quel que soit ce que dira le juge le juge bon sénégalais dinañ que nous avons loo xam il mu am ci gens moo xam boo boo waxee ñu ne leen waaw Ukraine dafa am guerre moo tax amuñu lii euh, Covid dafa am moo tax alors que yàlla dénk ñu suuf dénk ñu nox ngeen jël suñu alal def ko ci ay daj ba pare mënuñu am am résultat ñaar ñaar ñaar donc liñ ci wund ci yii yëpp appels yi yëpp accélération yi yëpp mooy dañu am lu ñu bëgg a faagaagal un adversaire politique loolu boo ko waxulee man bu ma ko waxulee